soxna Aminata kon kooku soxla li ñuy wax lu mu doon ci daje bi moo tax mu yabal nu ñu nekk délégation ñu ngi Tiwaawan pour teewal ko ci xew-xew bu texe bi di occasion boo xam ne mën nañ koo màng tey pour yeesalaat تفعل اكي ريلاسيون هيستوريك يا مور تحكي في الحاج احمد دم اب سيد الحاج مالك رضي الله عنه أه رغم سيد الحاج مالك دفع عمل بين المقدم ومن يكون شغل ما يكون زيادة بوجر ما هم عد مخدمة بميدة دفع وقت الجمعة جديد دنا لك جوابا زيادة سيدي الحاج مالك كوبا قدم من يونان الحاج أحمد دم بابا loolu ko man danaa ci ànd ndax ma gis Seydil Hadji Malick dañuy àndee ñëw mu présenté ko ko ni ki kii dën ndongo tukulóor la nekk ci lëkk ba bëgg xam-xam di ko jëfe di ko joxe moom ko présenté bàggal ba ñu génnee di dem Seydil Hadji Malick boo waat góor ga mu ñëw mun ko maa ngi lay dénk ndongo tukulóor boobu ngay wax yaa imaamu raati bu Sokone waaye soo demee bu mu toppati ci sa gannaaw yow na ngay topp ci gannaaw góor gi ba mu ñëwee jafe dem ndigalu sëriñam Cheikh Al Hadji Malick ka nangu nangu ka ban bañ alxaaji ahmad nekk suufam ba nekk fa la fa nekk jóge fi itam ne gis ne téeréem yu mu am science de travail lañ ko mën a tuddee bi mu am ak cheikh alxaaji malik di sual wal jawab yi ko lëntoon yëpp mu laaj ko seydi alxaaji malik mu tontu ko ci mu mujj def ko téere ñu ñëpp ñu koy jëriñoo ba ñëwee ci suñu bibliothèque yi téere boobu ñu ngi si léeg-léeg ñu dem gàggante muy sax ah ceeb ah ah ah man dem de laajoon na Seydi El Hadji Malick nangam lan la tontu ñu dem ci ci téere bi ni nangam la Maodo tontu kon ku nekk xam na ni am na relation yu dëgër yu mu am ak Seydi El bi Serigne Cheikh Mati am soxna. doomam Safiya Mati mu ngi si Babacar Sy sédd naa la ko soo gisee sa doom bu ko bëgg jox ko ko soo bëggee gisee sa jarbaat bu ko bëgg jox ko ko soo gisee sa taalibe bu ko bëgg jox ko ko sëñ Babacar ni bu ñu nee àll bi am na borom gayndee tax kon damay jël Safiya dénk ko Cheikh Tidiane loolu kon dafa ni ay buur mi amante na diggante ba kër Cheikh Hadji Malick loolu nag bii ma njaboot bi seet seet sëñ Seydou ak ñi mu àndal ma dem wax ko ko mu ne ma waaw su bis ba kon nga dem ma teewal ma fa teewal fa kër Seydou Hadji Malick